wax ak yow nga wax ak moom bu yem képp yem ca bu ca bàggaale dara lu ci bokkut loolu mooy teggin na nga ci jàpp bu baax ci sa diggante moom wa in jafaaka ndéem bëcc ngeel na la bëcc ngeel mooy ñaawu jëflante mel ne wax la mbaa mu def la loo xam ne daal neexul ci xol fax tamit kon na nga muñ mooy na nga yenu jëf wa taxoo bëcc ngeleem nga wa in xafaa ndéem fakkastalu na it fal tasturan na nga suturaal xaf wa taxoo fakkataloom nga waaw nee na bu la waxee mbaa mu def la loo xam ne neexul ci xol na nga ko muñ bul ko feeñal ci wax bul ko feeñal ci jëf su fakkastalee duñu ci fakkastalu ci ay baaraam nañ ci tànk déedéet maanaam bu defee loo xam ne jàpp nga ne wérul ci kilifa kilifa waru koo def boobaa na nga ko suturaal bu ko jàppee ni sax def nga loo xam ne du yëfi kilifa mbaa bu ko wax bu ko feeñal bu def lu koy nuru wala tësal te bul dañ moo tajuran di aji dawal ngànt mooy di aji balu ilayhi jëm ci moom nee na bu mu lay xaw a gëdd ka wax wax yi nu naqari xol da ngay nekk di ko balu rek ne ko baal ma man maa defut li ma war a def mel ni daal da ngay jëmale lépp tooñ gi ak sa bopp te balu yow te ak a jégalu wala takunte bul nekk jaa xadabin di boromu mere alayhi ci moom te bu tax loola nga mere ko ca mbaa nga jàppal ko dara faxu ci loola wala tuwaa ji xam na foo te bul jàkkaarloonte moom bu nabari ci xool fii kulli waqtin ci yëpp waxtu raamiqal mbir mu koy aji ja mbir mu koy aji ja ko ja ñu ko waxee ci wolof mooy xool jàkk bil basari ca gis ba nee na bul ne ko jàkk rek xëfoo defoo dara moo ne jàkk lu yàgg di ko xool deme ne kon da nga koo ñëwee da nga koo yewut kon nag bu def loolu li waxoon na luy bëgg a salaa yaa am yi wan a jublu ne an na minal adabi nag bokk na ci teg yin alxasan yooyu aji rafet an laa tabaxaka nga bañ a ree abadan mukk mukk bi xabarati bi xabarati man ci teewaayu koo xam ne xoo moom akbaru moo gën a màgg min ko ci yow ba tey moo gën a màggee it ba tey baax na kon ci at sax na nga def noonu kon bu dee doon ci at sax la màggee illa tabassuman ndare muuñ wa an laa tastarsila ak nga bañ a bayliku fil kalaami ci wax ji ma xaw ànd ak moom illaa an yatluba ndare bu dafa sàkk zaalika loolu mën ko ci yow fa tatakallama te nga wax maa xaw ànd ak moom xalaa qadri maa ci tam la nga xam ne talawa sàkku na ko fa innahu naka loolee al adabu moo di teggin fi xaq yi ci àqam xii nay sin ci waxtu woowee la waxoon rek moo del si ci saraa bi képp koo xam ne moo la mag mbaa ku ñuy màggal la ci wàllu yàlla soo toogee moom bul reeree gu am kàddu na nga reeree goo xam ne daal kàddu bu di jóg ba ñu rek mooy feeñ boo dee wax ak moom nga ami teggin bu waxanteeg moom mel ni ko wax su morom baa ngay bayliku di ca bàggaal lu ci bokkut yemal képp ci la nga war a yem bañ caa dolli dara wa isa jafaaka ndéem bëcc ngeel na la fax tamit na nga muñ baa na nga yenu jaf wa taxoo bëcc ngeleem nga wax te vir te ngay dogal ngànt ilahi jëm ci moom wala tuwaa jëfu te bul jàkkaarloo moom du basari ko ci sab gis wala tukk fir te bul di baril an nazara xool ilahi jëm ci moom fa daalika loolee laysa bi adabin du teggin neena bu la waxee mbaa mu def la loo xam ne neexul ci xol ne na war na laa naqari bu mu tax yow mu naqari la na nga ko muñ rek te nga jéggalu ko ne ko baal ma wax wax yenn daal mel ni yow yaa tooñ waaye moom deful la dara su ko defee bul ne ko jàkk di ko xool rek te doo xef te mu ne kon da nga ko yëgut wa in xaawal te ndeem sàkku nga xiyaaman jóg minal majlisi ci jotaay ba foqum kon na nga jóg xalaa la baaxatin ànd ak ñaw ñaw mooy yeewu ak teey waxta xiyaam yi ci waxtu jóg wa wala takun te bul nekk muy sàmm ca foofee daariyat turaab bi di aji xëpp suuf xalaa wajoohihim ci seeni kanam di xul fi ngir wóotee mag ak sababu jub ga ñu fàttali ki jàng ne ko buñ ne xiyaaman jóg wala waxtal xiyaami te téeréb moom bind waxtal xiyaam te itam mu def xaawal te xiyaam ñu jàng fii léegi daariyat turaab bi te mu def daariya turaab yu mel noonu bu mu tax mu soppi téeréem na bàyyi noonu rek xam ne buñ dee jàng benn benn daa yóbbu te wooyu rek waaye loola na bàyyi téere ba nu mel rek dara sikku ca daa wax ne nag boo toogee fii nit doo bëgg a jóg na nga seet na ngay jógee bu jékki-jékki ne yëkkati rek ànd ak doole daal di xëpp suuf da ngay jóg jógee nu tey woo xam ne doo yëkkati suuf doo xëpp suuf kenn loolu mooy teggee wa in qadarta ndeem mën nga ko it dem àttan nga laa takkun bul nekk daa naamin di waroomu nelaw bay na dawi yaqazatin ci diggante waroomu yeewu fil xaw mi ci nit ñi waroomu yeewu mooy ñu nelawul rek ñoo xam nelawuñu rek la jëglu fa innahu naka loolu laysa min al aada bi dem yi bokk ci ay teggin ibi ngir fii nekk na ci moom maa la nga xam ne fii nekk na ca ñoom xitaay bi ci yaraange ci yeddeel mooy yaraange nee na soo ko mënee du nekk di nelaw ci biir nit ñoo xam ne nelawuñ ne yow waaw ñoom nelawuñ yow doo ngay nelaw ci seen biir loolu du teggin ndax am na lu ca mën a xew loo xam ne da nga ko dégg léegi ci bisara bi loo xam ne mat naa moytu yaa ni dana jublu ne am na minal adawi naka bokk na ci teggin alxasani ji aji rafet an taxtarisa nga wattandiku min an tadriya ci ngay jëri maanaam ci ngay xëpp ak turaaba suuf xalaawu jooxil jullaa si ci kanam way toog ña ida arata ndeem bëgg nga alxiyaama jóg minal majlisi ci jataay ba fa in arata ndeem bëgg nga zaalika loolee faxum na nga jóg bi la waaxatin ànd ak mu ñaw nee na bokk na ci tegg yin boo toogee fii nit boo bëgg a jóg nga seetlu aw jóg yin bu jekki-jekki ne bëril rek daa leen di xëpp suuf ngay jóg jógin wu tey doo xëpp kenn suuf doo tooñ kenn doo teg kenn àq baatu la baaxatu boobu nag dafa mel dafa xaw a jafe ci luxa maanaam ci làngu arab moom lay wax naan wala la baaxatu baatub la baaxatu kal xabaaxati mi ngi mel ne baatub xabaaxati was nañ ci màndaxe mooy ci tolluwaayu baat wa maanan ak ci maanaa dafa wax ne al xabaaxatu ak ak ñaw xëy na moom ngay gën a miin ci téere yi ci al la baaxatu waaye al la baaxatu moom al xabaaxatu ñoo bokk tolluwaayu baat ñoo bokk maanaa ñoo bokk tëggoo faxaalatan wala tamura te bul romb xalaa wujooxil jullaas ci kanam way toog ña waaw nee na na nga may tam booy jóg na aw ci seen gannaaw waaye bul aw ci seen kanam maanaam boo toogee ba jóg booy jóg na nga aw ci gannaaw nit ñi waaye bul aw ci seen kanam moom ne ala bi bokk na ci teg yéen an laa tanaama nga bañ a nelaw bay nal ma te yàq viina ci diggante way yeewu maanaam ñu nelawut inistataxta ndem mën nga ko fa innahu naka loolu lay sa minal adabi déet mi bokk ci teg yéen is ngir xadd taxruju amaana mu génn min ko ci yow réexum aw gelaw wala tashxuru te doo wëg bi ci moom li amal xëy na ngir naka bët wikaa ut duburi wikaa ut duburi mooy takkunu buntu suuf waaw nee na bokk nañu teggin bu nekkee fii nit daal te nit ña kenn nelawu ci bu bëggee nelaw na seetu beru nelaw moom dong te bay nelaw ci biir nit ñoo ñee ndax dañuy bañ nee na bu dee nelaw ba ci biir te te ni yàlla bindi nit mooy saa yoo xam ne gëmm na bët yi tàmbalee nelaw buntu suuf yi moom day ubbi ko dañu bañ na yooyu jamono gelawal génn ci moom du ko yëg te fekk nit ñi moom toog nelawuñ loolu rek lañ koy bañal waa alam na nga xam bi àndal xir sa ci naka xir li taxaami jëm ci ñam min moo ji baati la xaari mu ngi bokk ci way waral ngàcce wal malaami ak yeddeel wala nga ne yaraange ba tey nee na bokk na ci teggin nga bañ a xir ci lekk mu ëpp ndax nee na xir ci lekk moom bokk na ci ñàkk teggin bokk na ci waral ngàcce ak yaraange wa man yuxalliq ku aj alhimmata yitte ja bi taxaami ci ñam wal farji ak sawukaay ñu wax fay pay rek waaye muy sawukaay faxoo moom aljaamihul madimmati mooy aji boole yëpp xas la neexi taqale ko ne aljaamihu mooy aji boole al madimmata ŋàññoo wala xasoo nee na kat nit moom boo xam ne yitteem yëpp mi ngi jëm ci bànneexub biir muy lekk ak bànneexub sawukaay muy jotee ci sawukaay nee na yooyu yaar moom bu fekkee yitteem ci la jëm rek kon ñàkk na solo lool moom nit ko bopp xam ne kon daal lépp lu di ñàkk solo lépp luy ngàññul ñàkk solo rek ma nga ca moom yitteem daal war na ko ëppale loolu xas bu ko war na laa doy min hu ci ñam maa loo xam ne yuq yi mu dana taxawal asul ba ndigg la taxaw wiyan ci dëgërlu li koy tuutiixa ngir nga topp arla boobu robe nee na lekk moom doomu aadama yàlla ko bindee war na caa jël lu tolloon nga mën a sàmm ak wéram ba mën a am kàttan mën a jaamu yàlla waaye nag bu ca sobee lu toll noonu rek doy na bu mu ko weesu wax dara na nga wattandiku min a sharahi ci foqle foqle mooy bëgg lekk ba yëpp kulle dëxërin ci jëpp jamono fa innahu naka moom mabda aw kulli sharri mooy tàmbalikaay yëpp waay nee na moytu bëgg lekk ba ëpp ndax nee na rek moom rawante ne taxoo ko saa yu nekk nga xam doo xiif benn yoon ay yu bare bare ci lay bàyyi ko ndax niñ ko waxee woon saa yoo xam ne biir bi rek na day mel ne ci yëpp dañoo xiif kenn ku nekk am lu muy sàkku am lu muy bëgg bu fekkoon ne xiifoo na moom day mel ne ci yëpp dañoo rek man day daal di am jàmm benn cër bi ko wax ne ko nangam ak nangam yaa ngi dana jublu ànd mu leen ada bi naka bokk na ci teg yéen xadama sharax yi ñàkk foq ñàkk foqle ila taxam jëm ci ñoom wa xadama taaliqil himmati ak ñàkk ay yitte bi ci moom fa inna zalika naka loolu minat banaati bokk na ci ak suufe wa mujibaatil madimmati alal waral aw ŋàññ ñu waxan rek la saraa mi bokk na ci teggin daal bañu ëpp bañu bëgg lekk ba ëpp wala ak ci yitteem ndax loolu daal moom ñàkk solo nit lool la kama xaala ni ki waxee woon achahi waykat ba waykat ba nee na woon wa innaka naka yow ma mahma tonti saa yoo joxee batt nag sa biir su lahoo lépp lam laaj su lahoo ak laajam mooy aajoom daal wa farjaka ak sa koy moom nga jox ko aajoom naalaa kon ñu am ñoom ñaar mun tax ak jàmmi day talu xas day talu ŋàññ ajuma xam mbooleem nee na yow nit daal saa yoo joxee sa biir lam bëgg lépp ci bànneex sa sawukaay nga jox ko lam bëgg lépp ci bànneex xamul ne kon daal moom li ñu wax aw xas wala ŋàññ fambale ba xam yam faj nga ko wadd bépp na nga takk mooy ni nga téye yadaka sa loxo daa tukkat sir bul di baril abaral mukk loxoon po bi xaa ci loxo bi fa innahu naka loolu xaybul sikk la ba daa sos fay na wala tanaawal lay doon wala tanaawal te bul yootu abaral mukk maa loo xam ne la lam yaxus làqut faidata njëriñ bi xaa ci loxo bi te bus kon nga tuufu bi taqribin ci jegeñal nee na bokk na ci teggin boo mën di toog nga téye say loxo bu nekk di ca soxantu di ci rëddantu ak a capp-cappali bant ak def ta li mu lool ngay toog rek teg téye say téye say loxo bu yootu mukk loo xam ne nii amul la njëriñ xanaa foye ko rek a tax déedéet loolu lay bëgg a sara yaa an yi dana jublu an na minal adab yi naka bokk na ci teggin bakkal yedi takk loxo mooy téye loxo wa tarka takk siiril xabasi ak bàyyi bari la foxe bi xaaja loxo ba wa tarka tanaawulima ak bàyyi yootu loo xam ne laa faayidati jëm njëriñ fii muy nekk ci moom bihaa ci loxo bi fa innahu naka loolu ñuhaa bu def na ko sikkal xalaa zawul axlaami ci waroom xel ya waaw nee na bokk na ci teggin daal fa mën di toog tey say loxo bu ci nekk di foxee dara bu ci nekk di capp-cappali bant ak dara lu koy noo bul wóotu loo xam ne it amal la benn njëriñ fa rek tax yëpp nee na bu ko borom xel doxee rek muy ñàkk teggin muy sikk wala zoote lii mimma bokk na ci li nga xam ne xam nat nattale na bii ci moom albalwaa musiba ma te mu ne loolu nag musiba mu daj la maanaam ñu bare bare koy def ba da ngay defe ni sax ayut bu ne waxee min ma xam mat bihil balwa maanaam mooy da ngay defe ni ayut ndax ñu bari dañ koy faral di def wa in samiata dem dégg nga man koo xam ne yakkoonu dana nekk ak dara di gën a màggee mën ko ci yow yu xaawilu muy sàkku wataran aajo zamaanan ci jamono bi mën di doon ka ay yarooma niki muy sàkku mursalan ku mu yónni li xaajatin jëm ci aajo faq bi kon na nga faj loxoo ñal ko lillaahi ngir yàlla tilkal xaajata joojule aajo nee na saa yoo déggee ku la mag mu am yitte joo xam ne bëgg na koo ko defal mbaa kum ci yónni fexeel rek ba aajo jooju faju bu fekkee daa bëgg kum yónni ci mbir dal di gaaw dem demali ko bu dee lu muy def li te nga mën ko dal di ko koy defal daal foo déggee ku la mag mu am aajo rek te nga mën koo faj rek taxawal temb ci faj ko ngir yàlla te lépp yàlla tax wala yoram te ba mu sàkku arimul arimul kenn min ko ci yow layaa dan dara illaa faal taxoon dara nga def ko bu zaaka ci loolu tukkaramu la deefi la terale yéen lu waay sàkku ci yow te mu te muy loo mën rek dul ko gàntu fexe ba defal ko ko lu waay wut ci yow te nga mën ko rek fexe ba defal ko ngir yàlla wala taqul te bul wax li ahadi ñel kenn ne ko gazabta fen nga aw xulta wala nga naa ko aw wala nga naa ko kon te wax nga mu xëyril xaq lu dëgg aw axtata wala juum nga aw xëyraxa wala isi yooyu min kulli shay ci lépp lu mën di doon wala ci lépp mbir yus xitu moom dana ko meraloo walaw kaana ak doonte nekkoon sabiyan di gone nee na nga moytu wax kenn ne ko fen nga ni ki wax ba noppi nga ne ko fen nga mbaa waxoo dëgg mbaa juum nga du noonu ak mboolem xeet tontu ñagas yooyu rek nee na boo ko wax kenn donte gone la itam gone sax mu wax ba noppi rek nga ne ko waxoo dëgg fen nga yooyu tontu bu ko ko tontu kenn kenn foofu moom loolu xolatu njuumte la nee na loolu moo ëpp naa def njuumte lu rëy la wa in takallama ndee wax na bimaa ci loo xam ne lam taalam xamoo ko fa saddiqhu na nga ko dëggalal fii ci loolee te kon kon nga nekk jaakaram yi ndigaram tëdd nga saxul ca nga wax lexoo ñeel ko ne ko lestu déet man dèjà ma jàppe woon nii aw kuntu wala nekkoon naa moo tax itam di aji fas nangam maanaam di aji jort nangam aw inna nii wala naka man jahiltu réere woon naa ko wana wa haza ak lu nduróog lii mina hibaaraatin ci ay waxiin tasuru yoo danañu bégloo mustahsanaatin yi diñu rafetlu laa tusi bul naqaral kenn wala tadurra te bul lor kenn nee na fi di waxee te nga jàpp la wax dëgg la waaw bu nit waxee ba noppi te nga jàpp li wax noonu la nga wax ne ko waaw noonu de moom dëgg la wala nga ne ko man day jàppiwuma ko woon noonu fekkee jàppiwoo ko woon noonu da nga ne nag man de nangam laa jortoon wala man naqawma ko woon ubbale woon naa ko ak xeet tont yi nga xam ne rek xolam dana ci sedd du ca mer dara du ko ca naqari te xeet tont yi daal na nga koy jéem fa toll te moytu wax lenn tontul naqari waxaa wit na ngay tamal al lisaana làmmiñ wa xawlal xayri wax aw yiw te fus kon nga toofu bii ci moom wa tukk fa te kon def na la fegal ku la bay leen jëpp lor nee na saw làmmiñ da nga koy tamal wax lu baax kon day mujj lu baax rek ngay mën a wax ndax làmmiñ moom loo ko tamal rek loolu lay tàmm te day wax lu baax rek di am lu baax di xaw li sa yit waraa ngir wax yi sangu mbindeef yi man kaana man kaana salla yàlla doy tedd nga xale yi ci moom rabbuhu boromam iddi maanaam ci ak saxal ndax leen yonent bi nee na woon man kaana wax ji dafaa tàmbali rek waaye mooy leen ngay seen ci saraaji mu sus ci rek mooy man kaana ku nekk yow mi ne diggam billaahi ci yàlla wala yow mi ak bis ba al axiri bi aju mujj fal yaqul nay wax xayran aw yow aw li yasmut wala mu noppee yonent bi nee na woon koo xam ne gëm nga yàlla gëm ne bis penc dina ñëw mu taxawal la fay la sa jëf kon loo bëgg a wax na nga ko seet bu dee lu baax di aw yiw nga wax ko bu fekkee di aw yiw du am tuyaaba nga noppi ca bañ ko wax yaa ni dana jublu am na minal aadaabi naka bokk na ci tegg yi ni alxasanat yi aji rafet am tudd yi ma nga saxal xadaa xaajati man faj soxlas ka nga xam ne koo moom ak baru moo gën a mage min ko ci yow isa samitaxoo ndem dégg nga ko yottulu bu foo mu koy sàkku ka ay yottulu woon nit ki muy sàkku man koo xam ne yuur si lu gën a ko yónni si xaajatin ci soxla ne bokk na ci tey gi mu rafet yi képp ku la mag daal bu déggee mu am aajo bëgg koo ko fajal nga taxaw temm ci fajal ko ko ni ki bëggee ku yónni ci soxla nga daal di gaaw doxali ko ko wa min haa bokk na ca an laa yatluba mu bañ a sàkk min ko ci yow ahadun kenn shay'an dara illaa fa'altahu dara nga def ko bokk na ci tey gi lu waay wut ci yow te nga mën ko rek nga defal ko ko bañ koo gàntu ko an laa taqoola ak nga bañ wax li ahadin ñeel kenn ne ko kazabta fen nga wala xulta du caag yoonu nga naa ko wax nga noo xëy na xàqin lu dul dëgg wala kalimatan du caag yoonu benn baat tusqituhu ba dana ko merloo wa in kaana ak bonte nekkoon na asgara di gën a ndawe min ko ci yow waaw nee na bokk na ci teg yin daal nga bañ wax kenn naa ko waxu dëgg mbaa fen nga mbaa benn baat bu koy merloo doon ci sax yaa ko mag wa in qaala ndeen wax na maa loo xam ne lam tan lam xamoo ko fa saddiqhu kon nanga ko dëggalal fii ci loolee waxul te nga wax ne lastu déet man kadaalika ma jàppe woon noonee wala kuntu nekkoon naa ah taqidu di fas nangam maanaam jorot nangam aw wala nga ne laa axlamu xaw ma woon daalika loolu wa naxwa haata ak lu mu roog lii min al xibaaraat ci waxin yi al xasanat yi aji rafet fexeel daal nee na moom bu kenn waxee ba àggal daal nga tekke rek lii sedd xolam te yow doo ci ami bàkkaar ndax la mu wax boo jàppee dëgg la mën nga ko ne waaw wax nga dëgg bu dee leneen mën nga ne ah man de jàppuma ko noonu wala man de nangam laa jàppoon ci xeet tont yi nga xam ne xolam dina ci sedd waaye du ci am wenn naqar yooyu doo ci gàddu bakkaar wa aw it nanga tabal lisaan ak soo làmmiñ am taqoola ci ngay wax xayran aw yiw fa xaala waxoon na mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man kaana ku nekk yuminu diggam billahi ci yàlla wala yow mi ak bis ba al axiri bi aju mujj fal yaqul nay wax xayran aw yiw aw li yasmut wala mu noppi nee na soo làmmiñ nanga ko tamal wax lu baax ndax loo ko tamal rek ci lay wéy te yonente bi nee na woon ku gëm ne yàlla am na te bis penc dina ñëw mu taxawal la fay la sa jëf kon loolu bëgg a wax seet ko bu baax bu dee aw yiw di indi tuyaaba nga wax ko bu loolu rek nga noppi bañ ko wax waqaala waxoon na baax du shuhara yi lenn ci waykat yi ne xawit tamalal lisaanaka soo làmmiñ xawlal xëyri waxu yiw tuxda kon def na la xeejal bi ci moom kon daañu la ko cërale maanaam inna lisaana naka làmmiñ yaa ataadu dana tàmm wala dana baaxoo li maa ñeel la nga xam ne xaw watta tamal nga ko ko dana am na ku ne woon soo làmmiñ tamal ko wax lu baax kon ñu cërale la wax lu baax ak am lu baax ndax làmmiñ moom la nga ko tamal rek lay tàmm taxaataa yuutu na moom làmmiñ wala taxaataa dana yuutu yow nit ki fii ku liseen ci bépp mbir maa la nga xam ne sanante wala lan nga ko la koy ñeel ko ci xëy di muy ci aw yiw wa chare ak waay falbur seetal kay fa tas daadu naka ngay dolli ko nee na moom daal la nga ko tamal ci lu ne làmmiñ daal loo ko tamal rek loola bu jógee ci lay aw moo xam lu baax la moo xam subaan ba la kon nag seetal lu lay tax a dolliku te doo wàññi ko te mooy tamal ko lu baax rek wan si na ngay dox li ajj li xaajati ngir aaju muy ngir soxla doo nax tiyaalin ci lu ñu puukaréewu puukaréewu mooy daagu fal ixtiyaalu puukaréewu wala daagu jaalibul aji ñoddee la ilaa nakaalin jëm ci am mbugal waaw daa wax ne del dox maanaam bala ngaa jóg di dem daal na am soxla su la yëkkati waaye bu jóg mukk di dem te amul soxla booy dox itam nga doxi na nga mëne doxin wu tey bu yaru rek waaye bul daagu bul puukaréewu ndax nee na dox di daagu te indi mbugal laa tadhakan na bul ree ak dëxëri ci jenn jamono min xëyri xaaja biñ ci lulu kiimtaan wala tamit te bul jeng lil machi jëm ci dox min xëyri arab biñ ci lulu aajo bu jekki-jekki di ree te du daa am kiimtaan maanaam lu jar ree lu la tax di ree maanaam bul ree te amul lu jar ree daal ci gàttal bu jóg itam di dem rek te amul aajo ju la ju la tax jóg di dem bu jóg di dem te amul aajo ju la tax jóg di dem balaa takun te mu nekk mu fafitan di aji geestu it bila tala bi ci lu sàkku dara maanaam jekki-jekki dox di geestu te amul lu tax di geestu loolu lépp nee na ëpp naa def fa kullu fii képp ci xamaaxatun ak ndof la naafat ba mu dàqonte naag adaban teggin nee na yëpp li ci nekk ak ndof la ak manqué la boo xam ne daal sore naa teggin wala takk sif bul wëññi abadan mukk an sara yu di ko wëli si satuway fa innahu naka moom yu xaat bi def na ko lim min tarki aadaabin mu bokk ci bàyyi ay teggiin te waxoo moom yiraa def na ko gis min chiyamil ashraari mu bokk ci jikko yi kees ya bu ñu nee kees ya mooy ñu bon ña fusaaqi xasaana ña di saay saay xasaan xasaan ak gàdd lañ ko tudd noonu zawil idbaari ña di waroomuk wan gannaaw aw yiw ña di waroomuk dëdd aw yiw nee na bul wok wok mukk sa tubéy bu dee tubéy ji ndaw itam fexeel ba mu feeñ xam nga ne bu dee tubéy ji mag nag moom xam ne xaw naa wecc ci mbub moom nga xëy na kon feeñ nga du aay waaye bu dee tubéy ji ndaw feeñal ko wala feeñal dara lu bokk ci lupp bi donte amul ci awra ju mag ya loolu sib nañ ko te du teggin feeñal awra ju mag yi ne moom dafa araam moom bu dee julli ak bu dee génn fi nit ñi baa fu ko ñu mën a jëfe day araam mu feeñal awra ju mag yi bu dee moom doomu ci am néega mooy yàlla nag ñu sopp itam mu sàng awra jumal jooju ndax teggi diggante mooy yàlla ak balaa ko yow a nekk waaye nee na di wax sa tubéy wala di feeñal li lu war ko feeñ ci sa yaram daal nee na ñi nga xam ne ñoo bokk ci waa xastaan te di ay kàccoor maanaam doon ñoo xam ne sàmm ñu seen diine rek ñoo koy faral di def li ñu wax bàyyi naaru na ñàkk sol tubéy moom ayut bu fekkee sol nga ci kaw lu tal loo xam ne moom wecc na tooy ba sa tàngaali tubéy rek te xëy na nan li gaaw a feeñal sa awra amu ci waaw loolu tax aay moom mel na neen wax jar na nga wattandiku minul kashfi ci wuñ anil batt ni wali si biir kadaniki nii maa la nga xam ni bay na surati nekk na diggante ju jumbax warut bat ak bati woom lisa ngir lii mais na ngay moytoo feeñal sa biir ndax bu ñee góor awraam mi ngi tàmbalee jumbaxam jëm ci bati woom itam bu ñu fayoon biir bi doo ko feeñal benn yoon li tàmbalee jumbax ba ci bati woom noonu noonu noonu la demee waaye am na teqale gën bëti woon bi ci boppam awra la waaye ñàngiwul ne awra ju mag ji jumbax bi itam awra la waaye ñàngiwul ne awra ju mag ji nga xam ne kon sopp nañ bu baax a baax ak lupp maanaam lupp beeg woom bi bu mu feeñ naka noonu jumbax bi bu mu feeñ loolu moom taal nañ ko bu baax waaye la gën a ñàng dëgg dëgg nag mooy awra ju mag ji moom ni ñu ko waxee woon araam lay def moom su fekkee day julli wala bu feeñal ko ci kanam nit ñi baa foo xam ni mën na ko faa fekk moom araam lay doon bu wéetee moom dong diggante bu yàlla waxam nañ ko léegi fa innahu naka loolu simatun mandarga la lil xumqi ñeel ak ndof wal jëxli ak réer wa qillatil muroati ak néewuk bañum rus al muhazzamati ka di kuñ màggal nee na yi mu wax yépp tegtal la ci ne kooku dafa dofe te xamadi te néew bañum rus bañum rus nag mooy jikko yu tedd yi nga xam ne mënu diine duñ faral di soree koo gis mu sàmm diineem dana ko di amee waaye koo xam ne gis nga mu sàggane diineem du ko faral di amee wa tax mën a ibbi ngir ci nga moom bañum rus uxtu diini mooy mbokkum diine xëy fi foog si dat foo fi xam ne ñàkkeef na ko laa yoo jël defu fekk defu fa fekk ak diinu diine kama sabata nag mu saxe an hum jële ci ñoom waaw nee na jikko yu tedd yooyu mat naa sàmm ndax moom diine ñooy faral di lëkkaloo mel day mbokkam duñ faral di tàggoo fukkee nekk kee nekk fa fukkee nekkul kee du fa nekk wasaliman na nga nuyu xalal li si ca ka nga xam ne xadam te dikk nga xaale ci moom dañ ko fi de ñu bis rek waaye mu dikk rek la doon te tukki woon doon ñu bis waaye yaa yaa ñëw fekk si ko rek gaawal nuyu ko bala mu laa njëkk a nuyu in talabtu ndem sàkku nga te am du ban teggin moom ñëw fekk ko daal gaawal nuyu ko bala mu laa njëkk a nuyu ndax boo xaaree ba mu nuyu la kon day mel ne kon da nga am lu yëpp ci sa bopp jàpp ni moo war a njëkk a nuyu mbaa daal lu koy nurum daal li gën daal mu yow mi ñëw fekk si ko nga fexe ko njëkkoo nuyu wa in yëkkun dem dafa nekk nag minhu tukkee ca moom ibtidaa salaam yi tàmbalik nuyoo ba farul doxoo kon na nga ko delloo alayhi ci moom bil kalaam yi ànd ak wax ene bu fekkee ne moom njëkk ni daal nuyu nag kon na nga ko fay te jàmmanteeg moom waxay suma saafaxtaxoo foofu xam ne saafaxante ngaak moom fa makkin na nga dëgëral yum naaka sa loxob ndeyjoor nu yum naahu ci loxob ndeyjooram bil mustaxsami ca la ñu rafetloo saafaxante moom bokk sa nuyoo yi saafaxante mooy joxantey loxo moom sopp nañ ko mooy nga jox ko loxo sa loxo nga jox ko sa loxob ndeyjoor jàpp dëgër bu jàpp dëgër loolu mooy saafante moom nee na taar sopp nañ ko lool wala takunte bul nekk naazihaha naazihaha di aji dindi loxo ba di aji nocci loxo ba nocci mooy rocci xataa yakoo na ba te mu nekkee xoo moom allësi li ka nga xam ne badaa jëkki na wala badaa feeñ na bi nafsin ci nocci mooy rocc rek xam yo biir comme dana biir nee na boo xasee jox sa loxo na nga téye bu dëgër ba noppi bu njëkk a bàyyi léegi njëkkut a bàyyi lu may daan ra yàgg nag ba am lu mu gàllankoor ci sa yitte mbaa dara kon moom li yem rek lu jaadu rek a jaadu nag moom moom itam ibi ngir kër yi siib nañu ixtitaafal ay dii këf ay loxo fi salaam yi ci nuyoo ba bi soxatil ànd ak gaaw ndax nee na taamuñu joxante loxo bu gaaw a gaaw ba mel ne da ngay da ngaa ragal loxo kooka loolu taamuñ ko moom si dafa am kenn la tarku kalaam yi bàyyi wax ba tey nuyoo rek bañ caa doole dara ci xeet wax mu ne ko dara dafa dox seen diggante mooy itam taamuñ ko su mal mu saafaxatu topp saafaxante ga bi nga dee ak yaari loxo min jumlatil aada bi bokk na ci mboolem teggin yi mis la bay ni kam yi la yaar dañoo waxoon fee léegi saafaxante benn loxo waaye mu ne saafaxante yaari loxo yépp sax nga jox ko sa ñaari loxo mu jox la ñaari loxoom loolu bokk na ci teggin yi ñu gën a taamu wala mu te na nga ñaan loxo ñeel ko xam ko wëlis la ba xëyrim ci aw yiw yaa la bi ban yow aji xellu fa innahu naka moom mun naa bokk na ci li nga xam ne yu kaffiru dana far ak zona bu bàkkaar ya ne na bu ngeen saafanteer joxante loxo na nga ko ñaanal aw yiw mu ñaanal la ko ngeen ñaanalante aw yiw daal ndax loolu joxante loxo ngir yàlla bokk na ci li tax yàlla baal leen seeni bàkkaar wa in turit dem na ngaa nam mu duxoo la baytil xëyri dugg néegu keneen mooy néegu jaamur fasta sin na nga diisu ëhlëxoo ñuñ néega tagus kon nga tuufu ba xëy liñ ci yow yow boo bëggee dugg néegu jaamur bu jekki-jekki daal dugg da ngay yëglu mooy boo séenee kenn da ngay nuyoo wala nga fëgg bu ko defee nag buñ la yëgee ba nga xam ne yëg nañ la kon li ñu wax rek mën a am fa in xumoo ndeem ñoom xat asimo digle nañu fii zaaka ci loolee faddaxul kon na nga dugg amu leen ne bisimilah jàll si may la ca ndigal kon nga dugg wa illaa ne may ñu la ca ndigal farjaxan kon nga dellu xunaa ko foofee li fekk amoo ndigal bul jàll dugg ci néegu jàmbur boobu su fekkee nag wax nga nuyoo baa nga fëgg te dégguñu ko mën ngaa waxaat mën ngaa waxaat baa nga fëggaat ba kera ngay jàpp ni dégg nañ ko waaye bu la wóoree def ko ñetti yoon te dégg nañ ko dañ laa wuyut nag kon say bañal bi ko xëy na kon dañoo toll ci tolluwaay boo xam ne mënuñu laa wax nga jàll see wala tujul bul wëndeel albasara gis ba fii bayti xayrika ci néew gul yow xaw fattilaahi xawratin ngir ragal yër awra satara jëj suturaaloon jëj suturaaloon na ko fii ci moom yooyu kat néegu jaambur bu leneen jàll si taxu nga am sañ-sañu fu nekk nga xool ko na nga moytoo dugg néegu jaambur di xool fu ne nga xool ko ndax dañu bañ say bët àgg ci loo xam ne borom na ko doon làq bëggutoon mu ko gis yaa ngi dana jublu ànd min al adab yi nag nga bokk na ci teggiin an la tamsiya nga bañ a dox illaa li xaajat dara ngir soxla fa inna min al xamaaqati naka bokk na ci ak ndof an tabxaka ngay ree min xëyri aajo biñ ci lul kiimtaan wa an tamsiya ak ngay dox min xëyri arab biñ ci lul aajo wa an taltawita ak ngay geestu min xëyri xaajat ci lul soxla dina bokk na ci teggiin boo xasee bay dem daal na am na la yëkkati waaye bu jekki-jekki dem rek te amoo aajo bu jekki di rey itam te amul lu ñor lu la tax a ree bu jóg di dem te amul soxla su la tax di jóg yëpp daal nee na ëpp naa def wa min haa bokk na ci teggi ni an tahtarisa ngay wattandiku min an takshifa ci ngay wëñ ni an saraawilika wëlis sa tubay fa inna zalika naka loolee min chiyaami fussaaqi xassaana mi ngi bokk ci jikkoy saay saay gàdd gi ñuy wax xassaan waaw nee na sa tubay daal buñ ci feeñal dara la bu dee tubay bu ndaw baa nga yokk sa tubay ba moom bi mbaa lépp dara di ci feeñ yëpp daal na nga ko di moytu
ba tey mel na ne tubay ju mag ji itam su fekkee mën na fexe ba di ko sàng maanaam di sol cal gu jëkk gu yiw goo xam ne moom tubay ju mag gi di feeñit ba tey mooy gën waaye nag mel na ne feeñal tubay ju mag ji moom te gën a sopp lañ ci jublu waaye jubluwuñ ca ak araam
wa an laa takshifa ak nga bañ a wuññu an batnika walis sa biir aw shay'in wala dara mi maa ci la nga xam ne bay na surratika nekk na diggante suju mbax warut patika ak sa bati woon sa biir aw shay'in wala dara mimmaa ci la nga xam ne bay na surratika nekk na diggante suju mbax waru patika ak sa bati woon fa innahu naka loolu minal jahli bokk na ci ak réer wa qillatil muraati ak néew bañu rus wax yette moom bañu rus kat uxtu diini mooy mbokkum diine xay su fukki dat foofu xam ne ñàkkeef na ko fa fukki da kon ñàkkeef ak diinu diine ma xaa ànd ak moom waaw nee na da ngay moytu di tàmbalee ci sa biir jëm gi suy bëti woon dara di ci feeñ te am na teqale waxoon nañ ko léegi jëm bi lépp beeg wóom bi noonu moom awra la waaye ñàngiwul ne awra ju mag ji ba tey li tàmbalee jumbax bi jëm si ci awra ju mag ji itam noonu awra la waaye ñàngiwul ne awra ju mag ji leeral nañ ko léegi daal mel na ne ci wax bu doy waaw nee na yëpp li tax mu aaye ko day wane ak xamadi ak néew bañum rus bañum rus moo jikkoy tedd yi nga xam ne mat naa sàmm bu baax ndax moom diine ñëw lëkkaloo fu diine nekk ñu bokk fa ànd fu diine nekkul du fa nekk fu mu nekkul diine du fa nekk moom mun xaa bokk na ca an tusallimu nga nuyu xalaa kulli ahadin ci képp kenn xadim te kook dikk nga xale yi ci moom wa an tarudda ak nga delloo assalaamu nuyoo ba alayhi ci moom ida sallamta ndeer ida ida sallama ida sallama ndeem nuyu na alayka ci yow awalan ci njëlbeen ne bokk na ci teggin koo ñëw ba fekk ko daal nga fexe ba njëkk koo nuyu bu fekkee moom njëkkañ laa nuyu nag kon nga fay ko te jàmmante moom wa an tusaafihahu ak nga saafahante moom wa an tumakkina ak nga dëgëral yaddaka sa loxoom mi di ci loxoom wa an laa tanzihaha ak nga bañ a nocc loxo ba xataa yakkoon ba te mu nekkee xoo moom albaadi di aji jëkke bi zaalika ci loolee fa inna ixtitaafal aydi naka këf loxo ya bi sarxati ànd ak gaaw makruuhu lu ñu sib la nee na ba tey saafuxante bokktu néew néew mooy wax ci sa làmmiñ asalaamaaleykum kooku fay la wax aleykum salaam ba tey loolu ñu seetlu ne na na wax nuyoo bi nuyoo bi lislaam asalaamaaleykum ñu fayee ko wax aleykum salaam te bañ a jëkk-jëkk jaar ci santam rek ni ko yow nuyoo wolof rek la nuyoo aada rek la tey koy nuyoo ci lislaam mën na nag bu nuyoo ci lislaam bu noppi nag jaar ci sant jaar ci santoo nag ko defee mu nuyoo aada nag waaye loolu tam bu mu ko defaatee bu ko defee joxante loxo yi tam moo gën jox ko loxo bu dëgër loxom ndeyjoor mu jox ko loxom ndeyjoor te bañ a gaaw a dindi ndax dindi gu gaaw a gaaw moom it tàmmuñ ko moom min xaa bokk na ci antu saa fixaxoo nga saafanteeg moom bi yedee ko ci sa yaari loxo jëm yi xam boole seen wax dëgg te nga ñaan loxo ñeel ko wala nga sik ak ñeel sa bopp bil xëy di ci yiw fa innahu naka loolu min maa bokk na ci li nga xam ne yu kafiru dana far ak dunoobu bakkaar ya nee na sax benn loxo la ñu waxoon ci saabaxante bi waaye soppañ nga defee ko ñaari loxo te ñaanu ko aw yiw ko defee loolu dana tax yàlla baal leen seeni bakkaar moom min xaa bokk na ci teggi ni an ta an tasta zina ngay diisoo isa arata ndeem namm nga ba xoola baytin dugg néegul jaamur fayit asinoo ndéem digal nañu la nga ñeel la daxal ta nga dugg wa illaa ndéem digalul la rajaata nga dellu wala parmi tegul sànni bi basari ko ci sab gis fii baytin ci am néeg laa tamlikuhoo bopp doo ko moom li yàlla tattaliha ci sànni mooy li allah li allah tattaliha ngir nga bañ a yëf fii ci moom xalaa xawratin ci awra maanaam ci la ñu nëbb daal waaw nee na bal ngaa dugg néegu jaambur da nga ci am ndigal ñu wax la bismillah jàll sil boo jàllee ba noppi tam da nga xam foo yemale say bët bul sànni say bët fu la neex rek xool ndax dañuy ragal nga gis loo xam ne borom da ko doon nëbb bëggutoon koo gis wala tusaaxib buy àndoon teeg ga safahin boroomu desee di aw xasadin wala boroom kañaan aw rawabatin wala boroomu xemmem àdduna in arata ndeem namm nga suux ba tam àndaale nee na soo bëggee àndandoo na nga ko tànn mu nekk ku desee di ku manqué mu nekk ku amee kañaan wala ku amee ak bëgg àddina wala tujaalis te bul toogaaleeg nga xay raman kudul koo xam ne tusaadu def na la dollee bi ci moom diinan diine waaxalan akum xel abadan faaw tanal kon nga am muraadan na mel nee na képp koy toogal rek nay koo xam ne da nga yokkoo ci mun diine ak xel aku yiw waaye koo xam ne doo yokkoo ci moom rek sootu sax farwàññi koo ci moom kooku moom dee ko sowee fa axbaroo xibaar nañu bi ànnamal mar u ci naka cam sa xalaa diini xaliilihi nekk na ci diini xaritam xadiisan mbir mu muy ab addis noqi la ba toxaleef na ko len addis ba sax nee na al mar u xalaa diini xaliilihi maanaam nit ku nekk muy àndal ñooyam tolluwaayu diine kooku dëgëree diine ci ànd ak moom ku dëgër diine la waaye bu ko ko woyofee diine xam ne kii moom it daa woyofale moo tax ñu mën a ànd rek kon moo tax àndandoo mat nay tawoo wax yaa ngi dana jublu ni am na foo naka moom yiis yi kat na la dénk bi an laa tusaahiba ci nga bañ a àndaaleeg ak sufaha away desee diya wa bi an laa tujaalisa ak ci nga bañ a toogaaleeg illaa man bare koo xam ne tasdaadu da nga dollikoo bi ci moom xaqlan xel woo diinan ak diine fa inna bi zalika naka ci loolee danaa lu ngay amee maa la nga xam ne turi bi da nga ko namm siddaare ni ci ay kër yi ndax fa inal mar am naka cam sa xalaa diini xaliihi nekk na ci diini xaritam yéen dalay dénk rek nga bañ a ànd ak kenn ku manqué koy àndal rek mooy koo xam ne nga yokkoo ci moom xel ak diini ak ak mbaax loolu boo ko defee da nga am lépp loo bëgg ci bu baax ndax nit ku nekk moom ka muy àndal muy xaritam rek ñoo yemoo ci diine ci ne ko addis ba waxee xaala wax na sayiduna sunu sang xaliyun xaliyu karama yàlla na doolee teral allahu yàlla wajhahu jëmam ja aliyu nee na woon falaata sabbal àndoon teeg axaa jahlin boroomu réer wa iyaak watul sa bopp wa iyaahu ak moom fakam lu bare bare min jaahilin ci aji réer ardaa alag na xaliyun aji xellu xiina waaqaahu ci waxtu woon mbokkoon teeg moom xanaa waxtam ko jàppee mbokk di ànd ak moom daal di ne woon bul àndanteeg ku xamut watul sa bopp te wattu ko ndax kat nit lu mu yeewu yeewu ak lu mu am am xel bu dee àndoog ku xamadi rek léegi ku xamadi nga yóbbaale ko aw ku sar alagaale ko te waqaasu def na natt ba def na xiyaas al mar u cam sa bil mar i ci cam sa isaamul mar u ndeem cam sa maashaahu doxante naag moom maanaam maashaahu ànd naag moom dox rek lañ jublu xiyaas mooy natt as cam mooy nit dafa wax ni nit kat dañ ko yemaleen nit bu gisee ne ñi ànd dox saa yu nekk bu gisee ñi ànd saa yu nekk kon ñoom la ñuy far yemale ne kenn lañu nga xam ne naali ni ki yemaleeg dàll bi naali ci dàll idaaman naalo ndeem dàll wa haadaahu yemonte naa moom nit nga xamee ne ñaari peer dàll bu yemoo ñu boole leen ni ab peer lañu nitam nitam ne ànd tabañ tàggoo rek ñu ne kon kenn lañu te wali chey i ñeel na dara xala chey i ci dara maqaayisun ay xiyaas wa ashbaahun ak ay niroo te walil xal bi ñeel na xol ba dalilun tegtal xalal xal bi ci xol ba ca des xii na walqaahu ci waxtu wa dana tasee moom te nee na kat mbir mu ne morom ma boo gisee ñu mën leen a natte daa fekk ñu amul niroo ñu far leen yemale te xol itam dañuy gisante xol yoo xam ne mënuñoo ànd bokku ñu mbir rek daal di tàggoo wali baadihim ñeel na leen ci ñoom itam mu ne ida kunta ndem nekk nga fii xawmin ci biir aw nit fa saaxib na nga àndanteeg xiyaarahum seeni tànneef wala tas nag tegul àndaaleeg al arda aji alku ja fa tarda ba ngay alku maharrat yi ànd ak aji alku ja nee na boo nekkee ci biiru nit na nga seet ñi ci gën a baax nga ànd ak ñoom te bul seet ka asaro nga yàqu ba noppi nga ànd ak moom mu lay yàqaale laa tas al bul laaj anil mar i walis camsi wasal na nga laaj xan xarini yi walis aji langoom fa kullu xarinin jëpp aji langoo yàqta di dana roy bil mu xaarani ca kañ yi langoom teel yooyu nit boo ko bëggee xam bu ko laaj laajal ka muy àndal rek boo ko boo ko see xam ka muy àndal rek moom itam xam nga ko kan la ñu doon wala takun bul nekk muy taw itam di aji geestu lil xabaraati jëm ci fakkastali nit ñi wala tubaaxis te bul gëstoonte abadan mukk wala tegu gëstu abadan mukk xan xawaraat walis ay awra nee na itam sakk sal boobu wax li nit ñi def te muy loo xam ne gënut waaye seen jikko seen mbir yi nga xam ne gënut daal lañ jublu ci fakk sal yi nee na yow boo ko di gëstoo ba di ko jéem a xam waaw lépp loo xam ne daal xeet doye beeg xeet doye doomi aadama la ak matal daal boo ko jéem a seet ci nit bu ci am soxla da nga koy dumóoyu sax boo ko boo ko xamoon sax war koo dumóoyu rawante ne nga koy jéem a xam ëpp naa def yaa am yi dana jublu an na minal aadaa bi naka bokk na ci teg yi nii alxasanat yi aji rafet an laa takkoon nga bañ a nekk taaliban di aji sàkku lil xasaraati ñeel fakkastalu nit ñi wala tubaahisa te doo nekk di gëstu abadan mukk xanil xawaraati wali seeni awra kama xila ni ki waxee sene laa tal tamit bul sàkku mun xuyoo bi naas ci sikki nit ñi maa la nga xam ne sataroo suturaal nañ ko fa yaxti ko bay xotti allahu yàlla sitral sutura xam masaawi ko wali say ñaawteef waaw nee na yooyu moo xam da koy saraa rek bokk nañu toogin rafet yi daal xeet doye de méthode yi nit ñi amee bu ko di jéem a xam bu ko di jéem a gëstu ndax kee nee na woon li nit ñi làq ci seeni sikk bu ci jéem a xam dara ndax boo dee jéem a xam seeni sikk di ko gëstoo ko jéem a feeñal yooyu itam yàlla day xotti sa sutura te wazakur na nga tudd rek mahaasina ma rafet rafet la nga xam ne fiihim nekk na ci ñoom nit ñi isa zikroo ndeem tuddeef na leen wala taxib te bul sikkal ahadan kenn minhum ci ñoom bi maa ji kenn loo xam ne fii ko nekk na ci yow nee na buñ tuddee kenn ci nit ñi mbaa aw nit da nga wax la nga xam ci ñoom ci bu baax boo bul wax dara ci ñoom loo xam ci loo ci xam ci sikk rawatina loo ci xamul nag te nee na bul jekk di sikkal kenn ci loo xam ne boo demee lu mel ni loolu mbaalu ko ëpp sax mu ngi ci yow wakkum na nga nekk kama xaala ni ki waxee woon shaahir waykat ba ne woon uhibbu danaa sopp makaarimal axlaaqi tedd ngay jikko ye jëfit yi kenn sama kàttan wa akrahu te may sib al ahiba may sikkal kenn wa am uhaaba ak bu dee ma sikkal wa asfahu te danaa jéggale xan sibaabi naasi walis naññanteeg nit ñi xil man ngir lewet wa sharru naasi ki yées ci nit ñi man mooy ko nga xam ne yaxwaa dana sopp ak sibaaba xastante kooku dana woon man de damaa bëgg jikkoy rafet yi lool te du ko jéem a amee du ma sikkal kenn nag ndax ni ma bañee ku ma sikkal noonu laa bañee moo tax ni ma bañee ku ma sikkal moo tax du ma sikkal kenn ndax xam naa ne ku ma sikkal tam mën a xëy ko nee na itam nit ñi buñ ma dee xas ak wax dara dama leen bimooyu baal leen waaye dama jekk di tontante ak ñoom ndax nee na ki yées ci nit ñi mooy koo xam ne buñ ko waxee rek ñu tontoo ko fayu wa man haaba ku wet arrijaala góor ñi wet wala tëy arrijaala góor ña te xëy yóboohu ñu wet ko wa man xaqara ku xeeb arrijaala góor ña fa lañ yuhaaba def ko wet moom it waaw dacaa teg ne koo xam ne wet na góor ñi yëg leen ñu wet la yëg la waaye boo leen xeebee itam te yëgoo leen duñu la xeeb duñu la yëg wala xadd ahsana rafetal na it man xaala ka wax ne ida chita ndoom bëgg nga an taxyaa nga dund wa diinu ko te mbir moom sa diine saalimun aji mucc la wa xabduka te sa cër moo fóor lu ñu lëwal la maanaam cër bu dul lay doon wa irduka te sab der sayyinun aji ñoŋ la su boobaa lisaanaka saw làmmiñ mën na itam lisaanu mu tada lisaanu ko saw làmmiñ laa tadkur bu tudd bi ci moom xawra tamri in xayu bi as cam ndax fay ndaka nekk na fi yow xawraatu ay awra wali naas te ñeel na nit ñi alsunul ay làmmiñ dana woon soo bëggee dund sa diine mucc nga am cër bu duwam sab der ñoŋ kenn du ko xotti kon fexeel ba tey sa làmmiñ bañ cee wax sikkus kenn bañ cee wax ayubi kenn ndax nee na li nga amee làmmiñ day wax sikk jaamur yi loolu la nit ñi amee làmmiñ te itam am nga sikk mën nañoo wax sa sikk wa in ab sarat ndeem xool na xëy naa ko sa ñaari bët xëy bam sikk waxul waxal laxaa ñeel bët ba ne ko falaa tubb sir yi bul xool yaa xëy na yow bët bi ndax lin naa si ñeel na nit ñi kat ax lun ay bët ñoom it ne na say bët bu bëggee xool sikku su jaamur na nga ko aay ne ko béet bul xool sikku su jaamur ndax kat am naa sikk te nit ñi am nañuy bët boo xoolee sikku su jaamur nit ñi itam daal di xool samay sikk waalam na nga xam bi am na xul fa waadin ci naka war ak dëhël wa kadiban ak fen min aafatil xadiis mi ngi bokk ci gàkkum waxtaan itamit na nga moytu xanuma walis ñoom ñaar nee na yaar yi kat mat naa moytu bële ba noppi war looy bële moom na fekk nga fas ko te nga taxaw temb ci matal ko ni nga ko waxee woon ba yàlla tedd ko waaye moom na fekk yow ba nga wax moom nga naroon te gannaaw ba taxaw nga temb ci mu amee na nga ko waxee woon fen tam wax lu amut nee na yooyu yaar moom baaxut na nga ko moytu bu baax wa fi xadiis yi ma nekk na ci hadiisu ko nga xam ne nu di mu dana mu saxal ak salawaati ay julli xale yi ci moom bil aali ànd ak ñoom ña wa saxabi ak ay saxaabaam ak siqaati ñi di ay ndóori laay ñoo ñoo ñuy dëgërloo daal nekk na ca nekk na ci hadiis ki nga xam dañ koy ñaanal yàlla dolli ko salaatu ak salaamu moo ko mbokk ñu ko gëmoon ak saxaabaam yu baax ya nekk na ca xaleykumoo xaleykumoo dénk naa leen alxadiisa jàppal hadiis ba xaleykum moo jooju hadiis ba dajaa tàmbalee dama xoy ci fara bi léegi ñu andil la ko ku nekkal sa dooxan dib dëggalaa kon wackan yëpp te nga teet mais te nga moytu alkaziba fen li koy tafooka ngir nga kawe nee na jàppal addis boobu te jëfe ko moytu lépp luy fen tey wax dëgg rek ndax nga jëm kaw yaa ani dana jublu ne annahu naka moom yuus yi ko dala dénk bi an laa takk diba ci nga bañ a fen wa bi an laa toxlifa ak ci nga bañ a war alwaax da dëxal ba wa yéen xaaka te mooy tere an xuma walis ñoom ñaar fa innahuma naka ñoom ñaar aafatul xadiis yi ñoo di gàkkum waxtaan ñun dalay dénk daal bul wax mukk lu amut bul doole ba noppi bul bëtiku wor yooyu ëpp nañoo def waxat xaala waxoon na rasulullah yonente bi yàlla bi sallaa yal na dal tedd nga allahu yàlla taxalaa kawe ne alayhi ci wa sallama tam doolu ko loolu ne alaykum dénk naa leen bi sitxi ci dëggal fa inna sitxa naka dëggal yahdi day gindee ilal birri jëme ci mbaax wa innal birra te naka ak mbaax yahdi day gindee ilal jannati jëme ajana te wa maa yasaalu di dañ arrajulu waa ji yas dukk di dëggal wa wataxarraa te muy nattale nattal dafa jublu bëstoo ko fàggu ak si taxa dëggal mu dëgg xataa yukku taba ba dee fi ko bind indallaahi fa yàlla siddi yoo xam ne mu di dëggalaa kon nee na hadis boobu mu diggoon ci way wa tàmbalee xale yi ko moo nekk nii yonente bi dana woon dénk naa leen lu ngeen di wax muy dëgg ci yéen lu ngeen di jëf muy dëgg ci yéen ndax nee na dëgg dala yóbbu ci mbaax te mbaax dala yóbbu ci àjjana te nit nee na bu dee wax dëgg ak di ko jëfe di ko gëstu fu mu toll di ko bëgg a gawut day mujj yàlla bind ne sama jaam boobu ab dëggalkat la te da ko farati incha allah wa iyaakum wattu leen seen bopp wal kadiba ak fen fa inal kadiba naka fen yahdi day jugale ilal fujoori jëme ci caay caay wa inal fujoorat naka caay caay yahdi day jugale ilal naari jëme safara wa maa yasaalu te du dañ arrajulu waaja yekk jibu di fen wa yetta xarlaa te muy nattale muy gëstoo ko seet rek al kadiba fen xataa yukk taba ba dee fi ko bind xindillaay fa yàlla kazzaaban mu di ab fenkat nee na woon yonente bi dane woon ngeen moytu wax lu amut muy fen ndax nee na fen baaxut da yóbbu nit ci caay-caay te caay-caay da yóbbu nit ci sawara te nit kat bu dee fen rek di wax lu amut du ko moytu day mujj yàlla bind ne suma jaam boobu ab fenkat la o burra na ngay topp waalidayka sa yaari waajur war faq te ngay ñëwante bi himaa ci ñoom ñaar wakkun te ngay nekk mu baajiran di aji gaawantu ila amri himaa jëm ci seen ndigal wan taxi te nga terewu wala te nga bàyyi an jublatimaa walis mboolem la nga xam ne xadd na xayaaka tere nañu la xam ne walis ko di rabbika ngir sa borom fa yes daada bay dolliku xolaaka say kawe nee na sa ñaari waajur da nga leen fonk yërëm leen li nga digal nga gaaw def ko li nga tere nga gaaw bàyyi ko mën na fa yes daada mën na fa tas daada itam xolaaka nee na bu fekkee nangu ngaa topp sa ñaari waajur nangoo jëfe seen digal nangoo bàyyi seen tere ngir yàlla da nga daal di jëm kaw wakkul man képp koo xam ne yokkoon dana nekk ak bari di gën a mage mën ko ci yow mënul aqaari bi ci jege ñaale yi fakkun na nga nekk mu wax ci di aji fonk ko boo xam ne ak yu dul jege ñaale yi sax man nga ne wakkul man képp koo xam ne yokkoon dana nekk ak bari di gën a mage mën ko ci yow mënul aqaari bi ci jege ñaale yi boo xam ne ak yu dul ñoom fakkun na nga nekk mu wax ci di aji fonk ko nee na képp koo xam ne moo la féete mag moo xam sa mbokk la moo xam ak jaambur la na nga ko fonk wakkunte nga nekk ma xam naa si ànd ak nit ñi jëm yi xam mboole seen bil xulux ci jikko ja alxasani jooy aji rafet yoo jub ko kon sopp la albadiw aji fent mbindeef yi nit ñëpp na nga ànd ak ñoom ci jikko ji rafet ànd bu rafet su boobaa yàlla dal lay sopp waxasin na nga rafetal alxulux jikko ja bi taraxu bi ci yaatu wa bi tawaddu bi ak ci sopp sopp lu ilayhim jëm ci nit ñi tux bopp kon def na la sopp bu ñu digalee jikko ji rafet moom la firee ci way woowu ne sa jikko ni nga koy rafetal mooy nga yaatu si diggante nit ñi feeñal leen cofeel ngir yàlla soo ko defee kon daañu la bëgg wala ñun te nga nooyal alxawla wax ja li kulli naasi ñeel képp ci nit ñi fa innahu naka nooyal wax min siyamil aqyaas yi bokk na ci jikko way ñaw ñi nee na say wax dee ko nooyal du di gëddaate ak a ñagasal loolu bokkul ci jëfi ñuy xellu ñi ñu yeewu ñi ñoom donte li ñuy wax dëgg na ci seen xol itam du tee seen làmmiñ moom day woyof rek te nooy ndax du tee nga am la nga bëgg incha allah fa axbaroo xibaar nañu bi ànd nisfal xaq li ci naka fa axbaroo xibaar nañu xantil fadli jële ci borom ngëneel bi ànd nisfal xaq li ci naka genn wàllu xelkat tawa dugg moo di ak sopp sopplu lin naas jëm ci nit ñi mu ne jële nañ ci ka baax ku baax ka mu ne xel de bu ñu ko doon xaaj ñu ne benn xaaj ba mooy fexe ba wan nit ñi cofeel ak mu yaatu du mën a déggoo ñoom ci kaw suuf ñun loolu bu fekkoon xel dañ koy xaaj ñu ne loolooy benn xaaj ba wa mi saadatil fata bokk na ci texes as cam ay su xasara fu mën di jublu allah yarut daxoo bañ koo delloo fu aadu di rachadi xol borom jub ne bokk na ci li wane ni kii ku nar a baax mbir la ku nar a texe la mu melee melo yoo xam ne daal képp ku baax du ko gis mukk feneti maanaam koo ku baax koo gis rek bëgg aw meloom bëgg ko te bañ a feneti yaani dafa jublu ne ànd foo naka moom yaa amar ko nal digal bi birri waaliday ko ci topp sa yaari waajur wa an tarfuqa a ngay ñëwante bi himaa ci ñoom ñaar wa an tubaadira a ngay njëkkante a ngay gaawante ila amri himaa jëm ci seen digal wa an tan taxiya ak ngay terewu mooy ngay bàyyi rek xam naa walis la nga xam ne naxa yaaka tere nañu la antu walis ko faqat xaala wax na allahu yàlla taala kawe na ne wa wasay naa dénk nañu al insaana nit husnan ak rafetal bi waaliday ci ñaari waajuram ilaa xëy di zaalika jëm ci lu dul loolu minal aaya ci ay laayi alquran waaw nee na la nga waxoon lay saa day dénk daal sa ñaari waajur nga fonk leen topp leen lu digal nga gaaw def ko lu la tere nga gaaw bàyyi ko ndax su borom nee na dénk nañ doomi aadama mu rafetal bu baax jëm ci ñaari waajuram te nee na loolu benn aay la waaye yeneen laay yu mel noonu daa ñëwaat ci alquran wa anta burra am ngay topp man ka nga xam ne xoo moom ak ak jaru moo gën a magi min aqaaribika ci say jege ñaale wa xayrihim ak ñu dul ñoom wa tur si ne te ngay rafetal alxuluqa jikko ja wa turaxiba te ngay yaatal bihim ci ñoom wa tatawaddada te ngay sopp sopp lu ilayhim jëm ci ñoom wa tatahabbaba te ngay sopp sopp lu fa inna tawadduda naka sopp sopp lu ila naas jëm ci nit ñi nisfu xaq bi mooy genn wàllu xel nee na mi ngi lay dénk nit ñi nee na mi ngi lay dénk képp koo xam ne moo la féeteeg mag muy sa mbokk muy ab jàmbur ah nga defal ko lu baax te déggal ko topp ko rafetal sa digganteeg moom nit ki kese itam nga xam ne li indi rek la neew nga rafetal sa jikkoo ñoom te loolu mooy nga wan leen ak yaatu wan leen cofeel ak bëggeel te yàlla tax ba ngeen mën a ànd ànd bu neex ci kaw suuf ndax nee na wan nit ñi ak yaatu ak cofeel ngir yàlla ba mën a ànd ak ñoom ci kaw suuf ku def ko woon xaaj xel mooy doon genn wàll ga wa min saadati mar i bokk na ci texes cam si allah yaruddahoo mu bañ koo delloo xal bu muminin xol bu aji gëm lu bokk na ci li wane ne kii mbirum nar naa baax te nar naa texe nar naa jibi mbir mu melo melo woo xam ne daal ku gëm yàlla du ko gis mukk feneti xol xolam feneti wa an tulii na ak ngay nooyal alxawl alxawla wax ja li jamihi naasi ñel mboolem nit ñi fa innahoo naka nooyal wax min siyamil ak yaasi bokk na ci jikko yooyu ñaw ña waaw nee na bul fàtte itam sooy wax nga di ko toylu muy sedd te bañ di ñagas ak naqari ndax wax di ñagas naqari daal moom bokkul ci yeewu ñu yeewu daal moom lu yeewu dëgër dëgër ci ñoom dañ koy waxe waxin moom nooy rek te tey rek moom daal mooy yëfu xel anzur na ngay siyaare xiyaaral xulamaa tànnee fi way xam ña wa saalihiina ak way baax ña waxtim xuma wata nga leen di lëggéeyal lillaahi ngir yàlla jàlla màgg na moom yàlla lahin ci bépp waxtu nee na boroom xam-xam yu baax yi ak nit ñu baax ñi ci des ñëpp da nga leen di siyaare ngir yàlla di leen lëggéeyal tam ngir yàlla saa yu nekk rek na nga koy def watlub da ngay sàkku duxaa ahum seenum ñaan bokkun te ngay nekk daa tabarrukin di boroom ak barkeelu min hum ci ñoom abadan fawu fa tas daala kon da nga dolliku alxudaa jub ñooñu dee sàkku ci ñoom ñu lay ñaanal tey barkeelu ci ñoom ba tey fa innama ijlaalu xaalimin naka màggal aji xam xamila jëf jëfi na xam-xam ijlaalu rabbil xarsi moo di màggal borom aras fii maa ca la nga xam ne xat naqi la toxaleef na ko ndax nee na koo xam ne dafa xam ba noppi jëfe la mu xam màggal ko màggal yàlla la maanaam màggal ko ngir yàlla moom màggal yàlla benn lañ waxaytu ma saaxatta foofi àndaaleeg saxsan jëmm ak bara ju gën a mage min ko ci yow falaat fël kon bul dañ mu waqilan di aju fonk la hooñeel ko fii safarin moo xam ci tukki la aw xëyrihi wala lu dul moom nee na saa yoo àndee koo xam ne moo la mag na nga ko wekk te fonk ko moo xam ne ngeen ànd di tukki moo xam ne ngeen ànd ci loo xam ne du tukki fa asiran na nga koy ëffal ëffal mooy yaatal mooy na nga koy bàyyee bi majlis ñi ci jotaay wa bi firashin ak cib lal saabiral mbir mooy aju muñ maanaam bu dee fu ñuy toog nga xam ab toogukaay la wala bu lal la yëpp da nga koy bàyyee te bañ a toogandoog moom du may ci kaw ngànt wax ji lis na nga toog xalal ardi ci kaw suuf wala takun te bul nekk maaxoo ànd ak moom alal firaas ci kaw lal ba in daxaa ndew woona la di taw si aatin jëm ci yaatal ne bu toogee fenn muy aw lal mbaa benn toogu ne la kaay toog fii fi yaatu na itam bul nangu fekkee du ngànt rek yow toogal feneen mbaa nga toog fi suuf iblaal yi borin dara ngis lor lu may na day ngànt ne bu fekkee tukki la ci oto da ngeen di bokk benn bank mu ngeen toog lu bare bare bu dee ci oto yi yóbbu nit ñi bu dee fu ñu toog di lekk itam am na ci jaayukaay lekk yu bari daal moom war a koy waral loolu moom dara nekku ja wa mata jaa saa yu dikkee ak taxaamu ñëw nga ilaykumaa jëm ci yéen ñaar aw sharaab wala naan nga yaa xulaaman yow asngoor falaa takun kon bul nekk saabiqa xóoti aji jiit ko loxoo jëm ca moom abadan mukk ba li fi nekk in tatir na nga nekk di ku am raxoo ndigalam fii ci moom daaka loolu rachadu mooy njub ga nee na bu ñu andoon lekk mbaa naan boo ko ci jiitu ba ci wax dara na nga bàyyi ba mu ne bismillah nga bàyyi ba mu joxe ci ndigal wakon te nga nekk moo sirahoo di aji ëfal ko dë ban faaw wala dë ban ci lu sax lu ihtiraam ngir ormaal bi jëy yi din ci la gën a baax mi na taxaami ci ñam wax bu ngeen bokkee ak lekk mbaa naan lañ defee ne moom lañ ci gën a taamu na nga ko ci yaatal mel nag ku soxlawut moom bàyyee ko ko moom ngir yàlla wax di ma xuti nga koy liggéeyal fii jam yi imaa ci mboolem la nga xam ne yaxtaaju dana aajowoo ilahi jëm ci moom tuq ba kon def na faj lakk ñeel la alxaaju aajoya baadu ci gannaaw ba nee na lépp loo xam ne xam nga ne yitteem la rek na nga ko cee taxaw di ko ko liggéeyal di ko ko defaral ko defee kon yàlla faj sa aajo yi itam waxay fi ma saaxabtu foofu àndaaleeg xawman aw nit fii safarin ci ab tukki nag fukk na nga nekk moo ay naxum di aji dimbale leen xalaa kulli watarin ci jëpp aajo loolu weesu woon mooy boo àndee ku la mag nee na boo àndee ñoo xam ne say morom lañu rek nag ay nit la wala yàlla boole rek ngeen ànd ci tukki waaw nee na lépp li seen aajo rek dee leen ci dimbale ngir yàlla wax ji mu xumoo na nga leen di liggéeyal waraxate na ngay sàmm rawaaxi la xumu rawaaxi la xumu seeni warukaay rawaaxi ay naaga lay firi ay naaga mooy ay gëléem ndax ñu daan war ay gëléem ci yooyu jamono na nga leen di dimbale te warukaay yi ñu war bu dee léegi xëy na oto lañ ëpp tukkee kon na nga leen dimbale ci sàmm oto baag lépp loo mën ci loolu waxaa leen na ngay bokk am ci xataxum seeni yére muy seeni bagage ba adaxuma ci seen gannaaw andee leen waral seeni bagage ngir yàlla man sur na ngay dimbale jam yi xawam boole seen bi maa ci lépp loo xam ne istatax te mën nga ko waa tadir te ngay dogal ngànt mooy te ngay balu laxum ñeel leen isa xoofal te ndéem sàggan nga ci genn wet nee na ñoom ñëpp dee leen dimbali loo mën saa yoo demee ba am loo xam ne nii loo watoon def la ba def ko mbaa loo loolu waroon defal te sàggan ba defaloo leen ko da nga leen balu te jégul leen su ko defee nag falan falan yoosira bu tànn sox suñ jëmm araada jub na mun a ay yàkkoona mu nekk moosiran di aji woomal mu tànn daxatan loxoy kese waraaxatan ak ak mooflaay nee na képp koo xam ne bëgg nga am lu baax nag yaa yi ko fi bàyyi loxoy kese ak ak mooflaay toog loxoy kese ak ak mooflaay moom da nga koy sori ndax indi ngir lees ya jiw du dikk min xumaa tukkee ci ñoom ñaar xayrun aw yiw ba li fi nekk yëtt yi dana dikkal almurida taalibe wa bayrun lor min xumaa tukkee ci ñoom ñaar ndax ne loxoy kese ak ak mooflaay moom aw aw yiw du ca bàyyi ko mukk déedéet taalibe yoo da ci jële lor waaye du ci jële njëriñ waa alam na nga xam bi anal maj da ci naka tedd nga laayu naawul deefu ko am illaa bi xadril kaddi dara ci kenn coono ba fii maa ci la nga xam ne xaaloo wax nañu ko mooy itam xam ne lu baax kat neexuta am te sonnoo te itam ne coono ba toll rek yàlla mën naa def ba am nga dikkee toll noona xam ne kon la sab coono gën a diis ak sa góorgóorlu rek yàlla mën naa def booy am am am ba rëyee noona kon nag sonn ca te farlu ca ci farlu ci lu baax dana tax am lu baax te bari le ko waxay tumaaraama foofu xam ne sàkku na min ko ci yow gis di xaaxin borom lu yeyoo fabdul fu na nga ko jox maaraama la mu sàkku bi laa chiqaaxin ci dul ngaayoo ngaayoo mooy xëccoo nee na saa yoo xam nit a ngi wut ci yow loo xam ne nii xam nga ne yeyoo na ko mooy boo ko joxee dana ko jëriñoo te du ko yàq dana ko am njëriñ te du ko yàq kon nee na na nga ko jox ngir yàlla te du ci am la werante wala tamunte bul nekk xaw bu mukk ba xii lan di aji nay bul xutaami ci pañet mi pañet ci cosaan mooy matt mu sew moom nga xam ne boo ko tegee taal bi day def jëfit daal di jeex ci saasa yëfi adduna yi muy alal di adduna yi mel noonu nañ ko tuddee pañet ndax ni mu gaaw a jeexee ak ni mu ñàkkee ak mucc fii haasihi dunya ci jëlee adduna fa toosaa ba dee fi la gàcceel fil qiyaami ci bis penc nee na yëfi adduna yi ñàkk solo yi nga xam ne balaa yàgg mu jeex nag dam la jaral mukk nay ci boo ko defee rek am gàcce ëllëg fa inna dal bux li naka boroomu nay bàyyi dun aji sori la minallahi ci yàlla wa min jami xalqi yi ak ci mboole mbindeefam yi id yaa innu ba dana gaar ndax nee na nay moom baaxut nay boo ko defee da ngay sori yàlla sori mbindeef yàlla yi sori àjjana ba noppi na jege safara wa saahibul bux li boroomu nay yuqaalu def na ko wamat ilan ñi daal di jëm ca sawara ya matroodan mbir mu ko ñu dàq anil jinaani walis ajana ya nee na ko nay bu ëllëgee dañ koy dàq bëggee jo dugg ajana dañ koy dàq dañ ko yóbbu safara nay nag ñaar la am na nay boo xam ne moom daa araam mooy nay ba nga xamee ne li yàlla farataal ci yow ci sa alal mi asaka mbaa loo amee àq loo amee keneen nay gi dana tax fa doo ko génne googu nay moom nay bu araam la nay bu ñu sib nag mooy loo xam ne mën nga ko jox kenn mu jariñoo li te du wàññi dara nga nay nag léegi ba joxoo ko ko ndax bëgg rek